BX6 parfum multi isage BX6 parfum bu de jamono bàyyi Canada vous offre un mouton en quartier ndax xam ngeen ni Sénégal am na ñoo xam ni fu ñu dem ñu wër leen ndax xam ngeen lu tax ñooñu dañoo am secret secret bi mooy Provit BX6 waaw BX6 mooy parfum bi yëngal jamono xet gu neex boo xam ni ku mu romb nga bekk ku mu romb nga ne li du mu doon parfum BX6 mi ngi bàyyeekoo Canada formule am dafa révolutionnaire nekk multi-usage adapté à toutes les situations BX6 day jaar fépp fu mu jaar mu xeeñ BX6 parfum bi xew ci jamono BX6 ca bureau ba BX6 artiste booy dem marché boo tu ci bus bi ñëppay gëstu naan kan la parfum multi usage mën nga ko jëfëndiko pour sa yaram ti mën nga ko jëfëndiko pour chambre pour âge yépp la nak de 7 à 77 ans BX6 la nouvelle référence de la parfumerie BX6 waa kër Serigne Fallou ci marché HLM ñoko fi indi BX6 cantine numéro 5C Diano ak arrêt Tataane woo ci 77 513 69 61 wala 77 072 99 99 ci BX6 ah ça c'est trop bon. ayca mbokk yi xarit ñu ñu déglu ci seen rajo bi nga xamante ne moo RFM tey nag dañoo am gan ndaanaan bu mag kulli fadri ñu koy wax abu Bilal abu Bilal maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. maa ngi lay dalal. di kontaan. di kontaan bu baax ci invitation bi. xam nga man du ma nangu wax rajo. dëgg la wallaahi moom su ma ci waxee rek. ci noddu la. Mhm. waaye moom dana la ko nangul ndax social bi ngay def ci émission bi nga xam ne mooy. jappale lah sa mbokkum julit mhm. ah? ma ma la ci la ne de wa ma ngi lay nuy di nuy say auditeur ñu mhm. ya. lay jaajeufal bu baaxa baax ndax xamna ni eh, jot amul rawati na yow mi nga xamanteni ni kilifa nga ci rew mi yow oustaz abou bilal ñu dégg que ni da ngay def cas social manam tabaski bi ñu jëpsi Euh, lan nga ci naar mooy lu kenn ñematu def te kenn ñema koo xalaat. Mhm. jëndee quatre cent mille jaayee fukki junni. Ah? ndax borom barke yi dañuy am xaalis dem jënd xar buy jar quatre cent mille takk ko ci buntu kër yi. Mhm. di wane na ñoom yàlla may na leen. dëgg la ñi nga xam ne seen loxo jotul sen ginnaaw am kerse génne seen i xar. Ah, ma ne nag xar bu mag. xar bu ndaw takk ko mm-hmm. yàlla waxul fenn ne ki am xar bu mag la tabaskam di naw dëgg la nekkul fenn ci alxuraan def ne boo amul xar util béy boo amul béy utul nag boo mm-hmm. amul nag utul ginaar am jamono ji ba gone yi wiiw la waaye nag yàlla dimbali ma ma am idée mm-hmm. projet man kese xalaat ko guddi sama xel naaj ci abu noon gi Dunguru ñu ngi ci en direct eh, eh, projet eh, boobu noonu naka la naka la ñëwee ci yow am woowoo may leeral Dunguru moom mayu ma kenn di ma ko wax dul kii boo ma waxee Dunguru nag xam nga bëggumaa dagg teg ndax yaa ngi ci projet ñu ngi jéggalu ah Abou Bilal mu mel ni que sànq ba léegi damay dégg sa Dunguru am lu muy wax ci suuf dafa am lu lakasu ci biir wala lan moo xew parce que dafa mel ni mbir yi leerul ah xëy na dafa am lu war a leeral yoo laay déglu ah, xam nga xalaat moom nit da koy am waaye ki réaliser xalaat kookooy lépp ah. da xalaat du yàqoo cim xel da cay a yaatoo maanaam oustaz yow da ngaa réaliser jox ko wala moom la da ngay déglu da nga maa laaj mhm. man maa réaliser li mu moom ah, moom daanaka figurant la rek du ci dara moom yow nag yow dangaa baadoo la ndax tey mënoo am projet nga xalaat ko ma jël sama carte d'identité tey ba tax ga mën a ami xar bu ma tey la wuloo ah, sama carte d'identité bu leen fàtte ni yéen a ah, a leer ca ba mhm. xam nga waa wax gi moom xam nga dëgg xam nga nit bu toogee ak sa sëriñ nga naan ko baadoo la mooy wane ne da ngay perte réseau dama koy nangul ndax nii lañ ma ko joxee mhm. te dama ko nangoo noonu ndax ak ay problème mhm. ndax moom yàlla dafa def ne waaw. Ah, xam ngeen ñi nga xam ne ñu ngi waaw comprendre kon léegi moo tax may wax ne. nit laa boo xam ne ah, sama baax baax. samay mbokk ñoo ko xam. man amul ku may àndal ku xam sama baax baax. Ah, samay mbokk yi eh, ñoo la mën a wax may kan. incha allah rabi projet bi dañu ko taxawal pour jàppale ñi nga xam ne seen loxo doyul seen ginnaaw. rendez-vous bi daal ca daral bala oustaz Abou Bilal xar fukki junni. Mhm. xar bu jar quatre cent mille fukki junni. Mhm. nañu gaaw na inscrire am na ay flyers moom moo ko distribué. distribué wu ma dara nag. mais mais affaire yi bëggoon naa xam ndax dafa am ku la ci gunge ku la ci jàppale. yàlla rek moo ma ci gunge ah, ak sama xel. yàlla ak man waaw Dunguru damay ñëw ci yow. parce que olof Ndiaye dafa ne liw bi liw bi li la. te eh, bu ma bokk. ba ma eh olof Ndiaye ak. yéen a ngi nekk en direct nag moo tax nga war a ba dunguru gi dama lay saaga woy jur léegi boo waxaatee dunguru. waaw ba tey baax na bu bu oustaz changé tur bi rek ma daal di koy kii waa comprendre naa ko. waaw léegi kon mbokk yi man ah. euh, dama waaw lan lay wax ba nga naan comprendre ko. lan nga comprendre dafa dafa dafa doon wax fii dafa sedd. man sama question bi ma lay posé rek mooy euh, ki nga xamante ne moo di oustaz Abou Bilal di def cas social yooyu. yow lii ba mu ñëwee nii ci moom bett na la wala bettu la woon. waaw moom daraam bettu ma. ndax nag garmi la jàmbaar la ndax moom social gii muy def da koo doon mhm. kii bari na ñoo xamante ni ci la ko doon ne ca baayam ak maamam gis nga kii sax xamul samay mbokk mm. samay mbokk ñoo xam samay jaar-jaar kii moom euh, li may dund ak moom ngay xam mais oustaz attends yow yaa ko yar te yaakaar ah, naa ne ku bokk sa famille. déedéet dañ ma koo jox. Mhm. mooy li ma lay expliqué léegi. mais yàgg na ak yow. yàgg na ak man parce que bi muy ñëw ci man xel bi ñorul. Mm, léegi ma toog ko ba fu mu ne nii des fois dafay am ay. wane na ko nag wane na ko xam nga ne eh, ñàkk ñàkk wér eh, moo tax nga toog sa sëriñ nan ko baadoolo. moom mii moo laax laax bi nëbb sankal si man maa jël sama carte d'identité mu woo ma ni ma dama am lu ma xalaat. Mhm. moom xalaat moom moom moom xelam. mag la mënatu la xalaat dara. mais sotti ceeg def ci la rek. yow sa yoon newul ci bu nuy ah, sottee bu nuy def ah d' accord oustaz ñu ngi lay ah. déglu ba tey. pour gàttal ko maay moom mooy man. waaw leeral nañu diggante bi. Mhm. incha allah ñëw leen Hann Maristes kat trang yi dana génn xar yaa ngi noonu yomb na te am na garanti garanti bi mooy maanaam doo dugal sa xaalis ci lu leeru mhm. ndax man kilifa laa nodd kat laa te jumaa ju ne taxaw naa fa nodd mhm. te nit ku baax laa du ma ko waxal sama bopp ak samay mbokk ñoom ko roon waxal waaye man mën naa ko waxal sama bopp te kii seede na ko mhm. kon léegi mbir yi daal mu ngi noonu mun ngeen woote si numéro yi ba pare fekk ñu ànd mari si dara ba tànn sa bu la neex fukki junni yomb na incha allah foofu lay gërëm ñaanal rajo bi nag ñu baax la ñu Provit BX6 parfum multi-usage BX6 parfum Bouyanga de jamono Bayeko Canada vous a offert un mouton un quartier